salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñuy déglu ci chaîne bi di Naby TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waaye di leen yëgal xew-xew bu rëy buy am Morolan macha allah ci penc luxus daaru mooy gàmmu maam Babacar bi ñuy amal le 11 mars incha allah 2023 ci penc bi. waaye ci buntu jumaay bi nga xam ni moom mooy jumaayu luxus daaru ñu ngi ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw macha allah di leen ziar bu baax a baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekkee ko ak jàmm mu jaar fi mu doon jaar rek su ko defee suñu wayjur macha allah fadilatul imam oustaz Mouhamed mbay moom mooy taxawu euh, guddi gi ak doomam ju baax jooju di Sidi mbay incha allah ki nga xam ni nag moom mooy way way di Moussa Dieng macha allah ñu ngi leen koy yëgal yéen ñëpp salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu